mbokku déglukat yi ñu ngi leen di dalal fii ci rajo Takaful seen waxtaan bi di kéemtaanu ceenu ki leen koy digtal mooy programme bi di jàppale askan wi ci wàllu koom ñu duppee ko Takaful seen waxtaan bi ñu weesu gis ngeen xujj di yaay bu mucc ayib di def kéemtalaay kàttanam ci ndimbalu borom këram ngir dundal seen njaboot dund bu jaar yoon te méngoo ak seen wér-gu-yaram ci cëppaandaw waxtaan bi kii di koddu di dëkkaale xujja ñëw na seet si ko jooy gàddu liira feebar tëral ay fan ngir sàkku ndimbalu xujja xujja ak njabootam nekk ci dëkk bi di ceenu fenn ci biir Mauritanie wéy di leen nettali seen jaar-jaar koddu yow lan la lu xew yow gaayama looy jooy lan la xujja sama liir bi alin dafa feebar si feebar rek la dëkk tiit naa torop yaakaar nga ni mën nga ma si jàppale yow mi ma si ëppale xam-xam Aline lu ko jot ñetti ay bése ngi dafa feebar day wacc te biir bi day daw rekk te wa taxaw te day gën di om te moom de maa ngi koy jox lekk bu bari tiit naa torop ba lekk bu bari koy jox léeg-léeg ma jox ko tàndarma at mburu at biskutu saraxule dama ko yeey ba mu mokk balaa ma koy jox baax na ci moom dama koy jàngal lekk ngir mu am yaram déedéet koddu loolu baaxul ci moom da koy tax mu xiiboon nga ni lan lu waral loolu koddu sa doom ñetti weer dong la am fu mu toll nii waroo ko jox dara lu dul sa ween leneen lu mu lekk du rees te mën na kaa jural ay feebar dama koy jox itam ndox at meewu béy déedéet déedéet koddu liir ween doo nga la war a nàmp ba mu am juróom benn weer ndox ak meewu bëy dafa am ay doomu jàngoro yi nga xamante ni kàttanu liir bi àttanu ko dafa néew doole sa doom sa ween doo nga ko war a jox mu nàmp ba mu am juróom benn weer yaakaar nga ni loolu moo tax xale bi xiiboon waaw waaw loolu moo tax mu xiiboon lépp man la maa ko waral bu ragal dara bis ni ki tey wéyal di ko jox sa ween fii ay fan dina tane yaakaar nga ni mën na ne waaw yaakaar naa ko bu tanewulee sax wéyal di ko jox mu nàmp te nga yóbbu ko ci bërëbu fajookaay yi bu ko yenn ah waaw dinaa def li ma wax jërëjëf xujja ah maa ngay dem maa ngi lay sant si xelal bi nga ma xelal yaakaar naa ni sama doom bi dina tane ba mel ni sa ay doom yi waaw kon kon du yaa ngi dem waaw niil ma seen waa kër bu baax niil ma bor waa kër bu baax nu fanaan si jàmm xujja xam nga man bu ma nekkee xale mooy béy nu mu daan jox te yàqul ma dara maa ngi ni nii wér peng toll nu ma tollu nii. mën naa am da am chance moo tax feebaruloo loolu baaxul si liir yi du rek ne da am chance ba tax na ni nga defaat li ni mel si yeneen xale yi. waxal Modou. yaay yaay jiit jiit. defal ndànk defal ndànk Modou loo yuuxu nii lan la. dama doon naan si bool bi ma gis mu ma gis si jiit bu rëy. Modou def nga lu baax ba ngeen naan lees ndox bi ci bool bi ndox bi duñ koy tuur ngir mu bañ ñu jàngoro ñu dem rootuwaat ci teen bi. jëre jërëjëf yaay. gis nga war nañoo fexe ba ndox bu ñuy naan mën a mucc si bépp xeetu jàngoro waaye yow sax tu def loon benn gutta. waaw waaw Moussa indi na gutta bi ànd ak kubéeram waaye neen dafay xaar nu fay ko. gutta bi ñaata la xanaa. nee na junne ak ñaar téeméer la ko defaree la ko jëndee. junne ak ñaar téeméer rek mi ngi yemoo ak téeméer ak ñaar fukk si xaalis bu bees bi. waaw téeméer ak ñaar fukk si xaalis bu bees bi miinaguma ko lool miinaguma ko baax téeméer ak ñaar la ko jëndee transport bi dikkee ko fanweeri dërëm. fanweeri dërëm rek. waaw fanweeri dërëm boo si yokkee téeméer ak ñaar fukk mu nekk junne wala junne junne. mi ngi toll ak téeméer ak juróom fukki dërëm. desoon na tuuti xaalis bu ñu programme takaaful jàppale woon war nañ cee mën a jënd gut boo ci d'accordé loo ci wax. waaw. wax nga dëgg jox ma xaalis léegi mu dem jënd goutte bi. ah mi ngi nii. su ndox léegi ji dootu si dugg ndax ji dafa salte léegi am nañu fu ñuy denc suñu ndox. teg ko ba mu wóor su ko defee lii lépp dootuñu dal te daañu naan ndox bu set te sell la. bisimilah eh yow moom di dem am na lu ma fàtte. loolu lan la. yóbbaaleel xaalis nga jëndal ma si genn wàllu mètre ti si gaz ak butéelu eau de génn wàllu mètre tisi gaz xanaa kooku da nga koy say da nga see tay cere. déedéet ndox bi dama koy segg laata ma koy sot ci gutti bi ndox bi buñ ko seggee ba pare toqal suutu eau de day set wecc su boobaa mën nañ koo naan te duñ ci jëlee benn feebar. waaw góor loolu moom baax na. ma demb bu mu ñibbisee xalaat na ni liggéeyu kër gi mooy ko jot ba mu mën a toog waxtaan ak njabootam. te wóor na que ni wan sa njaboot sa cofeel ci ñoom ba pare nga gunge leen am na solo lool. xale yi Modou Ndumbe ñoo leen fii toog leen sama wet. daf leen nànk daf leen nànk. sama disket bi mu wàcce ba léegi gis ma la foo nekkoon. ma jàngee wàcce génn kër gi maa ngi fi. dafa doon foo sama bébé kaay foon ma. Ndumbe foon ma. foonaan ma. foon ma benn yoon yow foon ma ñaari yoon ah foon ma ñetti yoon juróomi yoon ba juróom benn yoon waaw toogal nii toogal nii sa wetu càmmiñ toogal nii xale yi tey jii nag dam leen di léebal léeb yi ma samay waaju daan léebal taay ma nekkee xale ma léebal leen gaynde lëbbeer ak lëg waaw waaw léeboon amoon nafi fi daan na am bu mu amee yéen a fekkee yaa wax ñu dégg kii nag euh, lëg la woon ak lëbéer ak gaynde lëg dafa bëgg a bay te amul doole léegi mu dem seeti lëbéer lëbéer guddi lay génn gaynde tamit bëccëg lay génn muy lëbéer ni àndandoo bay comme yow yaa ngi fi tàkkal dex gi kaw gi sarew la su ma bayee bëccëg gi ba wàcc yow guddi gi nga timis nga génn bay sa waar ni ko waaw mun ko bu ma góobee mu séddoo moo dem seeti gaynde ni ko gaynde comme yow yaa ngi fii si digg Manding bi dama bëgg ñu àndandoo bay moo bayee ba pare bëccëg bi man guddi gi laay bay yow bëccëg gi nga bay sawaar waar ko waaw léegi bu bu cegee gaynde bay bu guddee lébéer bay nu bay bay bay ba seen bay ñor ba góob jot mu dem seet ci lébéer ni ko léegi tool bi ñor na duñ ko war a góob léegi damay jël benn buum ma jox la cat bi man ma dem si kaw jël cat bi maa ngi nu xëccoo ku ëpp doole morom rek moo jël tool bi libéri nag yow danga nga dof demal d'accord na ma dem si gaynde ni ko tool bi ñor na maag yow ñoo ko bay léegi kenn ko war jël léegi ñu natta sunu natta sunu doole damay jël buum toog si tàkkal dex gi yow nga yëg si kaw su ma nee yëngale buum bi nga xëcc ma xëcc ku fekk si moromam yaay moom tool bi gaynde ko eh yow sama geen rek laa la yow rey la mu ne acca mu ne ko pare nga mu ne ko waaw mu teel catu buum bi mu dem si lébbéer ne ko pare nga lébbéer ni ko waaw mu teel catu buum bi mu ne lébbéer su mu yëngalee buum bi rek lébbéer xëccal mu yëngal buum bi lébbéer xëcc gaynde xëcc lébbéer xëcc gaynde xëcc lébbéer xëcc gaynde xëcc ñoom ñaar ñoom lu xëccante fekkasante ku nekk loo sam damm ñoom ñaar ñëpp lu dee lëg jël tool ba bayul deful dara jël tool ba góob ba dem yoonam aw acca léegi xale yi léegi acca guddi na jóg leen ngeen tëddi tëddi jot na xamoon ni nga mënee lépp laay maa ngi léeb yu bari léeb rek laa mën puusal puusal waa góor léegi liir bi ñëw puusal puusal puusal kii di yuxu sama xarit la ndee la doomu biraan yaakaar na ndey matu dama war dem seeti ko waaw demal nga seeti ko man mu tëral xale yi maanaam toppatoo xale yi na yeetaleen lu tëdd mbokk yi yéen ñi di ñu déglu ci rajo Takaful daañu si ànd ak yéen ci yeneen i waxtaanu kéemtaanu ceem nekk leen ci jàmm.